macha allah euh, sectoriel bi nekk na sectoriel bu am solo gars yi indi nañ fi ciseaux yu rafet voilà léegi ñu indi woon fii nag euh, ay ciseaux yoo xamante ni majorité bi ñu ngi bokk ci euh, Roi Bachir ak Saloum Saloum ak Terminus ñoo fi nekk ak chef d'état mbay Diouf Cheikh Anta waaw ñu fi nekk ak Lassou Kabe Ferdinand deret yooyu ma la wax yëpp xar yu yooyu la ñu

li nga exposé ku ñëw dina ko rafetlu ku ñëw dina kontaan ci nga xam te ni moom indi te wax dëgg fa yàlla am nañ sax suñu njort ci satisfaction yi nga xam te ni mooy visiteurs yi. Euh, sectorielle la donc bergerie Wangeen dafa indi ay xar ci catégorie yi ñu demandé au minimum donc choisir euh, euh, bet yi nga xamante ni au moins am nañ yaakaar ne dinañ am moyen bu baax pour qualifier quoi. maal bi ma indi. Euh, doomu Dalenkoor la Dalenkoor doomu cosaanu séeréer la ak magistrat yaay ji di doomu gouverneur wa franchement euh, les box sont très bien installés yaay deg niñ ko defé par secteur en couleur xam nga boo yegsee doo quoi franchement et puis il y a de l'espace tu vois amul ben khat khat yi dañuy sans problème franchement suis quoi et puis l'organisation dans l'ensemble aussi man man chapeau wax quoi. la andi Salseb la Arthur Et Jogay 17 mois encore gars évalué ko suis gudi mu parce que LCS a nak macération 158,5, mu 124. autour mu génne 110,9 waaw attente duñ ci si bëggoon yëpp am nañ ko parce que dañu ñëwoon pour évaluer suñu xar évaluer encore yeneen xar yëpp te am nañ opportunité bi jury évaluer xar yëpp xar yi ñu ko encore am macération parce que ñoo ko natt kër ga mais macération yi c'est pas officiel ñu respect tamit ñool fii profito mun ko natale ak jury Adam am na yoo xam daal day gën a dafay gën a am base soo ko mën a wax. waaw bon ñu ngi indi benn mal ak ay doomam ay doomam ak ñaari sëtam parce que moom boo xoolee maal bi mooy recteur moom doom procureur la.

alimentation bon, cher On va condition d'élevage. bi en ville ce n'est pas évident sur terrasse dépenses liées aux litières euh, changement litière employés tout ça C'est un peu compliqué mais bon nous ngi sant yàlla parce que les gens qui xar voilà on a un projet On a un projet euh, on a déjà acquis les terres commencé nañ ci peut être petit à petit nank nank peut être dans quelques années euh, fruits yi commencé commencé judd quoi inchallah non organisation boobu dans l' ça s' bien passé quoi parce que box euh, aéré en plus c'est bien fait aménagement bi baax na. waaw engagement yi jëloon yëpp respecté nañ ko quoi. sectoriel bi mom wax deug yalla amna avancement bu baax a baax a baax te gars amélioré nañ xar bu baax a baax a baax. waaw indi na fi jeune euh, mal euh, muy Laay Gaynde di doomu Gaynde. toll ci âge de neuf mois euh, indi naa fi tamit doomu monument benn añel mu toll ci quatre mois euh, am na benn espoir moo fi indi boo xamante ni surtout amitié la kooku suñu cent pour cent produit Syrie la daana xar fi nekk sa cent pour cent produit Syrie la euh, ndax espoir bi mi ngi am dix huit mois benn porte la def indi naa fi yeneen ñaari femelle yoo xamante ni kii comme kii ma tee kii doomu aboola la di doomu magistrat waaw yaa ji juddoo woon tamit si Siré ak euh, femelle bi di doomu mbaykan loo la mbaykan loo di surtout macha allah bu Pambarour. waaw wax dëgg yàlla am na avancement am na avancement te gars yi amélioré nañ amélioré nañ bu baax a baax a baax moo tax ñu def kéemtulaay kàttan daal daal di ñëw fas yéenee bokk daal di exposé. ñëw nañu si jàmm ak salaam ak si nañu wax dëgg yàlla. ñëw nañ si jàmm ak salaam ni ñu gisee secteur bi macha allah lépp mi ngi à temps rafet na trop teral nañu ah teew nañu timit ganale nañu ba ne cëpp euh, président d' organisation bi la njëkk a grand maître Kane moo ñu dalal këram si la ñu toog a noppalu ko reposé bu pare doog ak agsi si foire waaw parce que sujet yi indi nag indi nañu ci champ galactique bi ak ba ak champ roi Bachir bi waaw parce que mal bi ñuy indi présenté ko moom la ñuy wax Rachid. Rachid doom la ci colonel bon suñuy wax colonel tamit doom la ci galactique waaw bon beneen femelle bu mag bi moom la ñuy wax Moumi Kébé Moumi Kébé tamit doom la ci roi Bachir Bachir deux fois waaw beneen bi moom la ñuy wax Esperanza Esperanza bi soo dee doom la ci Rachid parce que ñoo ko juddule waaw pour wane maanaam liggéeyu Rachid fu mu toll waaw keneen kii moom la ñuy wax tamit Taïb Taïb mi tamit doom la ci Rachid ak beneen euh, añeel añeel beneen añeel bu ñu indi bii ci bi ñuy wax dalandaa waaw waaw fii suñu fourragère bi ñun moom commencé nañ ci waaw parce que toujours parce que so dee xool parce que ñun la gën a jege que yéen sax parce que si euh, région de fleuve bi fa lañ koy jëlee au niveau de Rosso waaw parce que fleuve bi rek moo ñu séparé am na Rosso Sénégal Rosso Mauritanie franchement parlant ñu ngi fa ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax. waaw commencé naa ko waaw. aussi culture fourragère bi amna solo dal wa xari mom dina séré dina séré trop sax ndax gaay dañu liggéey gaay dañu liggéey ku ci melni man dama def lu wor lu wóor a wor bala ma ñew fi ndax xamna lu ma fi fekk wa te gëm naa ni ñeneen ñu bari non lañuy def wa ndax xari mom boy gën di visite di ñew sa kër bo ñew sa kër di nga liggéey de ndax bo génnee liggéey gis ak bo ñew sa kër li ngay gis ah di nga xamni amna différence di nga liggéey force wa motax adam 2022 2023 bi janvier bi ah dina de trop sax di ñaanal éleveurs yépp jamm té di leen wax élevage égal partage pour mieux améliorer gaay partager waaw pour mieux améliorer. élevage mom ko yokul ak da nga wañi donc amay ñëw incha allah jéem comme gaay fas yéene yegg fu gaay yegg rek ko na mais maa ngi émission yi suivre te so allah rek bëgg naa su si jógee mais ko xool joxe incha allah di remercier ñëpp rek di remercier ñëpp ne am na satisfaction si foire bi encore ñëpp ñu nga jot ñu nga jotal ñëpp ngi remercier ki nekk moo ngi wax si xar donc maa ngi remercier ñëpp daal waaw jaajëf fa macha allah macha waaw ñu ngi ci yoon de en tout ngi ci yoon parce que ñu ngi bëgg a roy ci Sénégal fii ñu ñëw fi fii di Rossi ñooy suñu ñooy suñuy di suñu roy référence waaw ñu ngi ñëw di jàng si di xool gën nañ timit mu avancé ba ba raw leen waaw waaw pratiquement def nañ fi ay foire je me rappelle que foire nañ fa deux fois oui am nañ ci foire mais par rapport suñ ko dee comparé nag mel na comme foire yi fii waaw loolu li gisee petit à petit ndank ndank rek dina ñëw daal ça ira mais en tout en tout cas gëm nañu ko gëm nañu ko waaw parce que toujours soo dee xool suñu foire bu njëkk ba ak deuxième bi am na différence bu baax noonu la demee rek day gën di avancé xanaa di leen sant di leen gërëm di rafetlu tim seen euh, seen présentation fii si suñu bergerie bi di leen si ci jëfal bu baax au nom de Brahim xar yi bota def si baax te macha allah saalam saalam bi yàlla da koo barkeel waaw lépp loo xam te ne laal na si ñoom ne da ngay gis ni dafay dafay feeñ seen phonétique waaw moo tax ñu dañoo bëgg nag liggéey maturation waaw mais bu maturation bu ànd ak beauté day nekk loo xam ni day parfaire boo xam ni ko gis rek da ngay da ngay moo tax souvent ñu bëgg di liggéey di ci boole saalum saalum duñ fekk saalum saalum bi kese quoi mais dañuy jël boo xam te leer na direct yoo xam ne am nañ doole am nañ maturation boole koog saalum saalum bu ko defee mu nekk loo xam ne day da koy parfaire quoi. Euh, barki démb ci guddi la ñu benn panel bu am solo euh, ñu ngi waxtaanee ci culture fourragère parce que koo xam ne léegi élevage bi ni mu demee nii ngooñ dafa cher te. Euh, xar yi seen yorin seen nekkin dafa dafa metti xonte bi dafa metti militaires yi li ñuy jaay ripaas dafa cher ba pare ngooñ ñëw cher bu boobu ba boobaa day day metti ñun éleveurs yi moo tax culture fourragère bi mu nekk lu ñuy intéressé lool ñu boo gisee depuis deux mois ngi nii léegi luzerne bi la ñuy xontee te gis nañ ni dafa baax ci xar yi xar yi buñ koy buñ koy lekk dañuy gis seen karaw yi day ruus di liis ba pare dañuy consommer moins ripaas bu ñu lekk luzerne ci la ñuy consommé moyen repas que par rapport bi ñu daan lekk ngooñ bi la ëpp la ñu daan lekk euh, repas bu ëpp. waaw sama dere mooy mooy di kontaan bu baax a baax baax ci bureau Adam bu bees bi wax dëgg fa la ay jeunes la yoo xam te ni yoo am ambition. yoo yoo xamante ni daal bëgg nañ jëlee Adam euh, fi mu nekkoon yóbbu ko feneen fu gën a kawe ñu leen di encouragé di di yow nag di lay gërëm bu baax a baax di kontaan bu baax a baax ndax sama waay nga sama xarit ay yàlla boole ñu pare ñu suñu papa yi di ay wóllëre voilà moo tax vraiment maa ngi lay gërëm di la di kontaan yow di la ziar bu baax njega waaw loolu loolu loolu loolu c'est très important donc parce que li ñuy wax naan bay dunde même nit ñi sax li nga xam ne dañ koy dundee bu fekkoon dañ koy mën di bay je pense que ci lay gën a jàppandi ci lay gën a yemb si ñun waxuma naa nag xar yi donc xar yi bu fekkoonte ne li ñuy li ñuy li ñuy lekk ñun ñoo koy produire suñu bopp ah non franchement je pense que dina gën a neex a jot dina gën a yomb si ñun ci njëkk yaa ngi dégg et puis peut-être qualité bi aussi dina tax ñu gën ko mën a saytu quoi. di di féliciter organisateurs yi. le bureau exécutif de l'ADAP. Je félicite aussi tous les exposants parce que franchement niveau billet parce que gis nañ fi ay mal espoir et un ne nii def nañ ay record ce qui veut dire que l'avenir est assuré donc gars exposé quoi franchement donc je les remercier aussi gis nañ seen liggéey donc ci élevage bi rafet na trop. Give when